asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ahibaalu xasaay di la Abdul Xadim maa ngi leen di dellu nuyu di leen siyaare kenn ku nekk seen turam ak santam di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan borom bi tabaaraka ko taala may ñi jàmmi xol ak jàmmi yaram may ñu ak wér gu ànd ko gudd fan lool ak teewal gu sax dàkk ci biir ak biti ak mujj guñ sant ak mucc gu sax dàkk incha allahu taala yàlla na ko yàlla defal ko mboolem julit yëpp. te xalaasal ci mboolem ñuy topp xasida yi noo ngi ñaanal a cheikh mohamadinil muntaxal bachir moom mi fi nekkal sëriñ tuuba xaadal lahu llahu la noo koy ñaanal sunu borom yokk aw fanam te may ko wér ba mboolem naal yi nga xam ne yéene na ko ci liggéeyal ku tedd ki sunu borom bégal ko ci naalam yëpp ba man koo yeggali mboolem naal yim tàmbali ci jamono ji rek yàlla na ko sama borom yeggali te bu yeggee yàlla na tàmbaliwaat yeneen ñi ko ànd ak moom te ñi daje ci ngërëmal borom Touba xaada lahu lahu maxtaara lahu noo ngi siyaara mborom koo xam ne yaa ngi ci biir daara jii di ay baal xasaay jël Abdul Xadim ñu fas ni di delluwaat ci ngëneelu xasida yi sëriñ bi wax ne nafa heda ya qatiyal maqbulu wan qaada lil kitaabu sabilu jasaba lil qat maqamat rijal wali tawasayra rijali wal majal sintu makatiba taduru bayna al arsi wal kursi tamhul mayna yaqin yal qattu dalalan ka qadab wa kullu man kaabada qattiyan qadab akramani llahu bi kawni qatti ila aljinaani qaabilan saamatti laa yantahi li qatti al asyaanu wa yanjali fihi lana albayaanu mu ne nafa dàqe na xëy daay sama noon moom yàlla xatee ci sama mbind al maqbuli bada buñ nangu. wan qaada li te womatal na ma ci alkitaabu alquran wa sabilu ak yoon wii nga xam ne mooy yoonu yoonu siraatal mustaqim sëriñ bi ci sama mbind yi may bind muy xasida yi ci la ma yàlla musale si samay noon dàqal ma leen gis nga mu ne xatiyal maqbulu mbind mu nangu la sama mbind mi nga xam ne sunu borom da koo nangu ba noppi sax laataa ma koy bind mu ne ci lama ma yàlla dàqalee samay noon waaye mu ne ci la ma yàlla joxee alquran ci la ma yàlla tegee ci yoonu siraatal mustaqim maanaam alquran ak yoonu siraatal mustaqim yàlla mi ngi ma womatal ñaari yëpp teg ma ca yoon wa jël alquran teg ko sama loxo nee na ci sama mbind ci la ma ko yàlla defalee kon na faa dàq ne daay samay noon xatee ci sama mbind mi nga xam ne al maqbulu mu ñu nangu la wan xaada wamatal na lii jox ma alkitaaba alquran wa sabila ak yoonu siraatal mustaqim yëpp tabaarakallahu euh, képp ku top mbind mi defe naa ne faaw jub moom dana la yomb waaw lépp loo xam ne dafa jëm ci yoonu siraatal mustaqim pour nga man faa jaar boo toppee jàng xasida yi te bàyyi woo ko sunu borom dana la yombalal yoon woowu. ba tey xasida yi ni ñee jas boo mboole maqaamam góor yàlla yi góor yàlla yi nga xam ne dañoo siiw ak yi siwut yi nga xam ne dañoo faddu yi nga xam ne kenn xamul seeni mbir sooy jàng xasida yi Serigne Touba nee na yàlla daf lay bul xeeti maqaama yooyu yëpp am na xasida yoo xam ne boo leen jàngee maqaama yooyu da koy ràngoo sax waxuma la sax nga saxoo di ko jàng mu ne jasaba lil xattu maqaamaati rijal wali tawa sayra rijali wal majal nga xam ne ñoom yoon wañ jaar ba am maqaama ye sax yow soo fa naroon jaar Euh, masalan euh, fanweeri xat doo ko yegg ci maqaam yooye ci benn ngont lañ la koy taxañal yow jànkatu xasidi mbala ci benn waxtu suba ci lañ la koy taxañal gars yi fañ jaar ba am maqaam yooyee yow ba ngay jàng xasidi ñi ngi la koy jasbul yàlla moo la koy jasbul du la ko mata da la koy jasbul da la ko ñoddi rek ràngaloo maqaama ya wax daal mel mafatul bisri boo koy jàng bis boo ko jàngee rek am nga garad yoo xamee ne amoo ko woon démb bi nga ko jàngee jamono joo ko jàngee moom ma fàttali bis rek am nga garaat yoo xamee ne démb bi nga ko jàngee amoo koon bis bu ne sama xama day gën di kawe bis bu ne sama xama day gën di kawe. moo tax ne jasaba ñoddil na lii ci man alxatti ci mbind mi maqaamaati rijal maqaamam góor yàlla yëpp moo xam ñi siw ba ñëpp xam leen moo xam ñi fàddu ba kenn xamut leen. watawaate lemal na taxañal na lii ci man sayra rijaali doxub góor yàlla yaa wal ma jaal ak yoon wa ñuy jaar di wëndeelu góor yàlla yi bu ñuy dox jëm ci seen borom ak yoon wa ñuy jaar di wëndeelu man saa borom daf ma koo taxañ a lem lem lem mooy la suñu borom defaloon yónente yàlla Suleymaan rek <laughs> ku xam na ko sëñ bi wax na ko tawali ilahi bonda sayri bi jaayi wali baana xayru sax yi baxdas ti bàyyi tawitu tariqal qawmi waxtam ti daayi wali qad qadal hajati bi rawdi wal basti ci midaadi wa aqlaam yi ci midaadi wa aqlaam yi kon lem moom ku ne war na ko mën a gëm oto rek firnde la ci ah, bu njëkk foo mënaan a jëm da nga daan dox fu ne gis nga oto yeeg avion yeeg nangam ak lépp lool yëpp tayu la moo tax góor yàlla yi fañ daan jaar man sama borom daf ma koo taxañal yoon wañ daan jaar di wëndeelu ba yegg man yàlla daf ma koo taxañal waaye ci mbind mi ci xasida yi may taalif ci la ma yàlla ñoddilee maqaamam góor yàlla yi ñoddi la wax nag waxuru womat kon képp kuy jàng xasida yi mbooleem maqaamam góor yàlla yi soo ko yëgee ak boo ko yëgut soo ko xamee ak soo ko xamut yëpp borom bi tabaaraka wa taala dalay ràgg maqaama yooyu jasabalil xattu maqaamaat rijaal wali tawaasayra rijaali wal ma majaal isaan jasaba lii ñoddil na ma alxati ci mbind mi mbind mi may bind maqaamaat rijaal maqaamam góor yàlla yëpp waa tawaata lemal na lii ci man mooy taxañal na man sayra rijaali doxub góor yàlla ya wal ma jaal ak seen wëndeelu yoon wu ñuy jaar ba yegg ci yàlla coono yu métti yooyu ak diir ba lu mu yàgg-yàgg man dañ ma kaa lemal donte dañ caa jaaroon ay ati at ay téeméeri at man ci benn ngont la ma ko yàlla lemal ma dal di yegg fu ma jëm saa borom tabaaraka taala te loolu yëpp maa ngi ko mu ne sintu makatiba taduru bayna al arsi wal kursi yi tamhul may naa sintu taalif naa mooy rafetal naa makatiba ay mbind yoo xam ne taduru danañu wëndeelu bayna al arsi ci diggante aras wal kursi yu ak kursi yu ga tamxoo danañu far al may naa fen muy kàcc mu ne taalif naa xasida yoo xam ne dara taxul leen di jóg lorut ña ngay wëndeelu ci diggante aras ak kursi yu moo tax roohi ñi jàng xasida yépp buñ tëddee nelaw seen ruux yi dañuy dem ci aras ak kursi buñ ko yëgee ak buñ ko ndax la ngay jàng ci boppam jëmm la joo xam ne leer la goo xam ne ma nga diggante aras ak kursi di wëndeelu yow mi koy jàng saa boo tëddee nelaw soroo gi xamal ne dem na aras soroo gi dem na kursi yu moo sa bi defar naa xasida yoo xam ne lenn rek leen tax a jóg muy diggante aras ak kursi yu distance bi lu muy sori sori xasida yi dañuy baagantu di daw di daw diggante boobu dañuy nekk ay jëmm aki i leer di daw diggante boobu di baagantu waaye nee na lépp luy xeeti sos yi ñuy sosal yàlla lépp loo xam ne xeeti fen la ak kàcc xasida yooyu nga xam ne diggante boobu la ñuy daw amul benn fen wuy romb foofu jëm xaras wala kursu yu déedéet bala ngaa yegg yow bala ngaa yegg si yow fen wi rek xasida gi ci boppam moo lay far xasida gi moo lay fer moo lay far ba nga faru moo tax ne taalif naa ay xasida yoo xam ne dañuy wëndeelu ci diggante xaras ak kursu yi léegi nag diggante xaras ak nga xam ne nag xasida yooyu dañ ciy baagantu bépp kàcc boo xam ne nar na yéeg jëm ci aras rek xasida yi ñoo lay dogaale far la ndeysaan ba tey bu ne yaqiini yal xattu dalalan ka xadab te wa kulla man kaabada yan xadab mu ne alxattu mbind mi muy xasidi yi muy taalif yaqiini ya danañu ma fegal dalalan cànku muy réer ka xadab ni mer sëriñ bi nee na mbind moo tax duma mer duma ma sànku mer du ma dugg mukk cànku itam du ma dal maa ngi ko amee ci mbind mi mbind mi ci boppam su ma naroon a mer mbaa ma jaar ci mboy gi rek mbind mi ci boppam moo may delloo si waat mu ne wakul la man képp koo xam ne kaaba da jànkuwante jànkuwante ne man in xadab doges ko xatti ci mbind mi ci sama mbind mi kuy jànkuwanteeg man sunu borom mi lay daggatee mi ngi lay doge mi ngi lay fàtte mi ngi lay toroxale ci xasida yi ci xasida yi may taalif waaw waaw suñ mi ngi lay fàtte mi ngi lay doge ci xasida yi may taalif moo tax mu ne mbind mi ci boppam moo may fegal lépp luy cànku ak mer kon jànkutu xasida wartu réer waru di jàpp mer waru di mer waaw jànkutu xasida dëgg du réer du mer ndax xasida ga ngay jàng moo lay génnee ci réer génnee la ci ak mer waaye fekkee da ngay jàng xasida gën a sànku ñëpp ñépp mer ñëpp jàngugoo ba tey moo tax ma ne yëqin yi dana fegal alxattu mbind mi dalaalan réer ka xadam ni ki mer ñaari yi muy réer ak mer dégg nga te lépp saytaane koy waral mu ne wakul la man képp koo xam ne kaa bada wante na man wante na ak man kaa bada mooy ku lakkale ku lay fitnaal mu ne wakul man képp koo xam ne kaabada dafa jànkuwante ak man xatee ci sama mbind in xadab ci lañ koy daggatee kuy jànkuwanteeg man ku ne mbind mi moo raw ci mbind mi ci lañ lay daggatee. mu ne akramani llahu bi kawni xatti ila aljinaani qaabilan saa matti la yantahi li xatti al asiyaanu wa yanjali fiihi lanal bayaanu mu ne akramani terale na ma allahu yàlla bi kaw kawni i ci nekku samay xasida sama mbind ilal jinaani ba kerek may dugal jana qaabilan mbir moom muy aji nangu ko saa matti mbir moom muy boroma tàllal ma ay xéwalam ci xasida yi talaa yantahi du jublu mukk alinsiyaanu ak mooy li xati ci sama mbind wa yan jëli fii te dina fiiñ ci biir mbind mi lanaa ñeel ñu albayaanu xam-xam boobu ñuy tuddee bayaan mu ne suñu borom daf maa teralee ne ma bakkire ngay dugal jëna sa mbind mi nangu naa ko te lépp luy xéewal maa ngi la koy sottee ci mbind mi lépp luy xéewal maa ngi la koy joxe ci xasida yi akramani llaahu bi kaw ni xati ilal jinaani xaabilan saa matti yàlla teralee na ma ci sama mbind mi bakkire may dugal jëna ne nangu na ko waaye ci la may sotti xéewal yi may defal ci mbind mi ci la ma koy sottee waaye lu ñuy tuddee al isyan mooy mooy bind ba yàgg nga juum walla xëy na sax euh, yow yëgoo ne juum nga waaye xëy na ñàkk xam laak wala fàtteeg yu mel noonu yëpp nga bindee baat bi noo xam ne wala nga maasee ko noo xam ne xëy yooyu yëpp da lay wóor ne wóy wi damm na wala baat ba yàqu na wala max naa ma soppeeku na mu ne loolu du jublu mu ko sama mbind te mbind mi ci boppam dafa saf sàpp ak xam bu ñuy wax bayaan maanaa boo xoolee mbind mi doo ci gis baat boo xam ne dafay naqadee firi te dangay xam ne maxnaa bi lii lañ ci namm loolu tax Sëñ Tuubaa li mu bind yëpp bayaan moo ci nekk al bayaan mooy xam-xam boo xam ne dafa lay leeralal maxnaa yi ak adila tegtaluwaay yëpp daf la koy leeralal loolooy xam-xamu bayaan maanaam mbind mi dafa fees dell bayaan nga xam ne mbind mi tey boo jàngee xam-xamu luxa rek xam-xamu naxu xeeti xam-xam yi même boo ci giijur sax boo tiimee mbind mi mën a xam lu muy firi baati arab yi dañuy wute nag yeneen ci yeneen xam ne buñ la joxoon seeni xasida yi pour nga firi ko dangay ngay dem fu ne di xool wala ngay laajte baat bii ni ñu koy firee nangam mais mbindum sëñ bi boo koy duru sax bu yàggee da ngay mën a xam lu muy firi ngir nooru ilaahi gi loolu xam-xamu bayaan bi ci nekk moo tax moo tax baat boo xamee dafay naqari firi toujours daanaka doo ko ci gis wala lu néew nga koy gis te baat bi sax boo ko gisee bu fekkee gis nga ko ci xasida yi lu muy naq naqari firi bu ñu la ko firilee nga xam ne da ngaa jàngut rek waaye boo jàngoo da nga xam ne baat neex a firi lay ne moo tax mu ne nag yàlla terlee na ma daal ne sama mbind mi nangul na ma ko ba keroog may dugal jëne te lépp luy xéewal ci mbind mi ci la ma koy sottee te laa yent yi du jublu li xatee ci mbind mi alxisiyaanu ak mooy mbind mi amul njuumte amut fo amut jamaj amut fo yëqi xilaam yel xataa wa sax waa baaxiñ kafaani yel xedaa wa lax moo tax ne mbind mi mooy nekkut ci waaye mbind mi li ci feeñ mooy bayan bi moo tax bayit boo ci jël rek danga koy mën firi wax max naa bi jàll te du jar sax nga ci yàgg moo tax nag wayeen jilee dana feeñ fii ci biir mbind mi lanaa ñeen al bayana xam-xam boobu ñuy tuddee bayaan loolu moo tax nag boo liiri mbind mi rek da ngay a xam maxnaa bi ci dëgg-dëgg lam làmboo wa ma salika an laay ci in uridu ila islam masatantu wa ma tawfiqa ila billah ali tawkat weli und wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu